auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala nabiil karim sayidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi sawi ridwani wa tamkin bokk jullit yi bokk taalibe yi seen mbokkum taalibe Moustapha Guèye taalibe sëriñ Moustapha moom sëriñ Massamba waaye di soppeeb sëriñ Mbàkke moom maam soxna loo Jóob Taïf di ànd ak Serigne Mountakha ci liggéeyal Serigne Touba saa su nekk tey ñaanal Serigne Moustapha Massamba mu yàgg fi te wér ak kilifa yi diine yi nekk ci biir Sénégal yëpp tàmbalee ko ci sunu kër maam Sidi El Hadj Malick si di ñaanal xalifa ba muy Serigne Mbaye Sy Mansour muy sëñ Babacar Sy Mansour yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal it Serigne Maodo Rakam ak njabootu ak maam Abdou gépp di ko ñaanal waa Ceneba di ko ñaanal waa Ndiassane di ko ñaanal waa Layène waaye di ko ñaanal it waa kër Cheikh Omar Fouti mboolem fu jullit yi nag ci àddina ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di siyaar it xalifa généraux yi comme ni ñu ko baaxoo woon a defee mboolem cheikh si nga xam ne ñoo nekk ci yoonu sëñ Tuubaa it eh, ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm ah ñu fas yéene nag dugg ci eh, ni ñu ko baaxoo di defee rek saa soo xamee ne jafe-jafe am na eh, ba xel yi mel na lu muuru a ah, ñu daal di jéem a def suñu kem kàttan rek pour fexe muriwaat xol yi. ba mu feex ndax xel kat jëriñu lu dul xalaat ndax yàlla bay wax yaa ulul albaab ah, ñi ànd ak xel rek ñoom lay waxal kon tey eh, bu dara xewatee lu mel nii loo xam ne tartar yi jéggi na dayoo ci ak ñaawaay te kenn mënta takk ñaawaay gi fan la war nañoo seet ka yëkkati loolu xool ba xam ab jullit la wala du ab jullit ndax kat léegi lu ne nit man na ko Moustapha gi mii bu ko ci bu ko neexee man naa chance aw turam jël ko neex def ci profilam dégg nga wut ay numérom wut aw askanam ci biir Sénégal te amaana sax bu ko neexee mën naa bañ a juddoo Sénégal waaye comme aw làng moom réew moo dem mu nekk war nga ko mën a dégg jàpp naa ne it la nga ca bëgg a jàllale man nga ko caa jàllale waaye maa ngi dénk bépp murit wala bépp tijaan wala bépp jullit bu nekk ci biir Sénégal te kàddu yii nga xam ne kii tuddee boppam Ousmane Ba moo ko yëkkati jëme ko ci diggante murit ak tijaan te lam jëmee ci murit gën a tar gën a metti ndax yëmalewu ko ci kenn nit Sëriñ Tuubaa mi moom yoon wi lépp di yaakaar yi ñëpp dajee ci moom moom la yëkkati tuuma ju ñaaw jooju teg ci kawam muy kàddu yoo xam ne si suñ fukki xel ak juróom xalaatul di ko yëkkati wala di ko junj junj ko gu fees noona it la ko tege ci yoonu tijaan wépp kon mel na ne bàyyiwul kenn noone it la ko tege jullite Sénégal yi ndax yu moo yooyu yëpp utilisé na ko ci ma bëgg leen a xamal ne depuis 2002 ba nëgë ni na ngeen bàyyi xel ci ne tubaab yi liñ bëgg mooy dañoo bëgg a taal senegal te taal googu moo leen di të ba àddina di tukki képp kuñ ko teg ci sa loxo tamit jox la bare albet jox la essence sab loxo du jóg ba nga di ko mën a tàll ndax lu yàlla defaral boppam aaral ko boppam doomu aadama lot na ci dem di yéem a dindi kaaraange jooja léegi nag lu bari jaar na fi terrorisme boobu nga xam ne mooy lëmbe àddina bi nekk Nigéria nekk Mali ñu koy wax terroriste gis ngeen ne réew mu ñu dem bëgg koo taal ngir ay intérêt réseau boobu lañ fay installé loolu du kenn lu dul tubaab yi ñoo koy def ci sunu biir def ñu ngànnaay li dina dóorante ci sunu biir ñun rek ñoo ci yàq yàqoo ñoo ci gaañoo kon nan daal di delluwaat rek ci la yàlla waxoon ci waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu nan delluwaat ci innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum ndax jullit kat ñaan mooy li nga xam ne mooy ngànnaayam kon ku am ngànnaay jàpp naa ne warisu laa mën a gañe kon nan dellu nammat sunu ngëm xam-xamee xam li jaadu ñu di ko def xam li ñu war a wax ñu di ko wax xam li mat a defit indi ko def loolu nag tubaab yi Sénégal la leen ciy bëgg a të 2002 ba tey bunt bu nekk teg nañ ko jàpp nañ terroristes yi menacé leen pour wane leen ne am na sécurité du ngeen fi mën a dugg bu mukk lañ bëggoon mooy mu dégg ñu dégg ko mu naqari leen ñu wane ne leen ne li ngeen wax du dëgg ñu ñëw dugg ci réew mi lëmbe ko waaye ñaanu ñaanu waliyu yàlla du ko delloo loola taxul mukkit benn terroriste jóge fenn ba bëtt frontière Sénégal daal di ñëw dugg ñu demaat ba mujj ñu daal ne nañ dugg ci pas-pas yi fexe ba jullit yi li leen yàlla digal ñu fexe ba wàcc loolu leen ko xam nga jigéen yàlla da ko digal muy muur ay cëram li ñuy wax ijaab ñu xëy xëy ne ijaab yooyu nag mayetuñ ko kenn di ko def di dugg ci école yi loola tax nag ñu jaar ci bunt boobu defee na ca la gën a gaawee wala ci la ñuy mën a installé affaire ba te loolu gis ngeen ne France gi nga xam ne day xeex l'islam moo ko jëkk aaye ci réewam kon bu Sénégal ne ay quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans la ñëw di ne dañuy aaye ijab ba am école yoo xam ne wax nañ na sax ku ko fa defate du too dugg ci biir du too fa jàng loolu ci réew mu ñu wax ne réewum layig la réewum démocrate la réew mu fonk l'islam la yaakaar naa ne moom réew du def lu mel noonu ñaareelu paye ngi noonu ñu daal di dem loola sottiwul ñuy wéy ba àgg ci bis bi nga xam ne mooy bisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne bi mooy xeet jug jullit yëpp di xeej ak suñu borom ku yàlla nar a dimbali daf lay xertal ci moom nga gëm ko topp ko doon jullit xàqan guddi googu nga xam ne kii la sëñ Tuubaa doon waxe misaale li mu daan wax naan laylatu ma laylatu mawlidi nabi laylatu ma xawi rëya bi laylatu ma xawi taxa bi watu rësi tax bi ba lam ba ba àgg ci wax wa akmalul wara xalxan wa xuluxan zahra wal mislu xat lan yura wala lan yura fi seem yi nga xam ne nu ne wane na ko guddi gi ngir xar baax yi ak ngëneel yi yi ci nekk ñu ne loolu pas-pas la boo xam ne si bu ñu ko tilimalee rek jullit yi mën nañoo jóg dalante bu ñu dalantee rek réseau boobu day daal di juddu foofu ci biir Sénégal muy réseau terroriste ñu daal di wut ñi nga xam ne ñooy borom ñaari tur nga xam ne yàlla daf ci daan alak am réew daan walbati kaw féetale ko suuf féetale suuf li féetewoon suuf mu féetale ko kaw bi yónnante bi ganee jamono nag la daal loola defatu ko waaye dana ko def lu weccoo ak loola ñu jàpp leen ci guddi gàmm gi jàpp ñu leen guddi 31 décembre jàpp ñu leen guddi 24 décembre waaye guddi googu lañ leen jàppee ngir bëgg ñu jóg dal ci seen kaw su ko defee ñu daal di créer violence boo xamee ne que ni ah dana jur musiba loola it yàlla dogal antuwul ñu dem ba mujj ñu ne nan boole tariixa tijaan ak murit ndax gis nañ ne ñoo fi am doole te bu ñu leen noonulee rek. ba dugal euh, lu mel noonu ci seen biir danañ mën a jàppante te bu nu jàppante ay wi kenn du xam fu mu yem ñu daal di jël jël li nga xam ne mooy kasetu Seydou Wella bi mu defoon en 1980 wala 81 jàpp 82 ci jamono jooju te mënoon a tas àddina te diire lu toll ci 40 nangam minutes wala lu ko manqué tuuti nga xam ne lam ca yàq sëñ Touba kenn mësu ko dégg ci demu géej gi ak lam ca dolli ak lam ca sos yooyu yëpp mënoon a yëfit fitna nga xam ne booba murit yi mënoon nañoo jóg fénkoog te jaan yi mu daal di jur terroriste loola lépp it suñu borom dogal loola daal di jàll. ñu waaye tegguwuñ seen tànk waxtu jot ñu ngi def ñu daal di fexe ba ñii nga xam ne ñoom lañu la ñuy wax wahabis wahabis nag buñ ko waxee pour bañ a tooñ ñëpp ñu baax a ngi ci ñuy topp sunnaa ngi ci ñu gëm yàlla ngi ci ñuy moytu tooñ a ngi ci waaye nag ni yoon yëpp amee ab safaan ñoom it dinañ amee ay safaan ñu jël gone yoo xam ne si firaguñ it jox leen ay moyen ne leen fu waaye mën a nekk dee leen tànn ci kilifa ñooñu nga xam ne mooy tarixa yooyu di leen saaga su ko defee foofu it mel na ne bunt la boo xam ne bu ñu ko ubbee li nu fi bëgg a installé danañ ko installé boobu ba léegi dégg nga ñu këree seen i groupe di jël ay tuuma di ko teg murid di ko teg tijaan yi àgg ci ba di saaga xalifa yi àgg ci bay saaga kilifa yu mag yooyu comme nii ko Ousmane ba muy defee loola ñu dox ci ay at sottiwul léegi nag ñu demaat bu mujj ñu ne léegi daal li gën mooy nañ fexe ba dugal fi luwaa boo xam ne duñ ci laaj kenn xalaatam dañ nañ koy woteloo ñu wote ko suñu ko wotee nag bu jàllee liñ bëgg a installé danañ ko installé muy gis nañ ne lislaam bëggul borom ñaari tur ndax ñoom jàng nañ ci histoire gis na yàlla daf ci daan alak aw askan ñu daal di indi nouveau droit nouveau droit yooyu tey jii bi ñuy génnee am ñu ñemee am fit taxaw de wax ne du loi yu baax ndax loi góor jigéen a ngi ci biir am na ci ñoo xam ne ci seenu égoïste ak seenu réer tax na nanguñ ko woon a gëm waaye tey yaakaar naa ne feeñ na ndax manifestation yaa ngi mel ne tulleeg màlle ba lii ci xew ci waykat bi barki démb ngeen dégg ko ak audio yi nga xam ne mu ngi daw ci whatsapp yi ak dëkk yi nga xam ne lu mel ne Ville Sainte Touba bee muy ak yeneen dëkk yi ña ngi ko fay dégg te am na ñu ci jàppoon loolu ñu jàpp ne tey bu ñu amoon mën nañoo jóg jëflanteeg ñoom rey leen su ko ñoom comme am nañ doole am alal financé leen ñu daal di jóg daal di jàmmarloog ñoom ba risque boobu mën a wu Sénégal waaye loolee tamit suñu borom daal cee def jàmm ñu dem ba àgg ci sunu élection yii gis ngeen ne Touba mësta wooye woote violence Touba jàmm rek la ma sa woowe la wootew ñi fi nekk ci jàmm lañ ko ma sa ndax loo am ci jàmm danga nga ko mën a yore ci jàmm waru sëñ Sidi Muxtaar comme na mu ko daan déglee loola nag tax ñu daal di jël ay militaire ne dañoo bëgg sécurité bu réew te ba nekk fi policier nekk fi ak yeneen sécurité yi nga xam ne ma nga ci réew ma ñu wàccee ko ci dëkk boo xam ne si dañ ne moo gën a mën a woote jàmm moo gën a mën a dox jàmm kooku ñu ne dañuy indi militaire ngir def sécurité ba kon loola mel na ne lañ doon togg am na luñ ci jot a yàq ba wane ko loola it borom daal cay def jàmm andiwul benn violence te it kii nga xam ne mooy Ousmane Ba mii nga xam ne moom lañ mën a jàpp ci ne moom la tudd ndax moom lañ def ci profil bi def ci numéro téléphone wax dëkk ba mu nekk jàpp naa ne jullit bu dara jullit nekk ci yow nga gëm Muhammad bañ nit ëggul ci nga yëkkati lu toll ne ay saaga walla ju wax ju ñaaw ju ju tegginiwul di ko teg ci sunu kilifa gu mag gi muy sëñ Touba. ak di ko jëmee ci ay waajuram ak di ko jëmee ci ñeneen noonu it nga jëlee ko teg ko Alaaji Malick teg ko ci waajuram teg ko ci tarixab tijaan bi nga xam ne ñëpp du loolu moom jàpp naa ne jullit mënta bona bon ba àgg foofu googu mbon moom ko fa àgg moom du tuddatub jullit léegi ba tey loolu buntu la bun ubbi ki ko wax mën naa bañ a doon ab sénégalais ndax wolof ñëpp ko dégg ki ko wax mën naa doon sax ab sénégalais te du doon ab jullit ndax xam ngeen ne am na lu daan xew ca gannaaw koo xam ne dafa daan wax naan du ma jullit te wareloo naa jullit yi ay ati ati at te ma mi ngi ci yeneen i réew loola ku ko dégg boo déggatee kàddu yu mel ni lu métti métti na nga ci ànd ak dal ndax amul kenn koo mën a identifier lu tubaab yi installé la te boobu ba léegi ñu ngi koy jéem ci Sénégal te mënagun koo am buntu bu ñu ci ubbi nag ba defee ne falal yëpp yi jaare buntu ba tëjuwaat ñu créé waat beneen loola laa jàppee lii nga xam ne moom la kii tudde boppam Ousmane ba wax ndax lii képp koo xam dara ci lislaam wala nga xam dara ëllëg ne danga nga faatu te da nga dee danga nga dekk tam wóor na la mënu indil andil wenn yu jàpp naa ne ab jullit du ko def te ku dulub jullit sax ña ca seeni xol rafet doon def lu mel nii ndax wala xadda karam naa ba ni aadama kon nag yéen ñi koy dégg na ngeen ci ànd ak tekk ak tey te xam ne lu ne mën naa am jullit mën na koo def muy jullit boo xam ne dafa réer te nit bu réeree moom lu nekk lay man waaye na ngeen xam ne ku dulub jullit te ragalul lenn nit mën na koo def ngir lan ngir bëgg a dajale jullit yi ñu dajale ci seen biir di xeex ñu ne réseau terroriste am na biir Sénégal ña ngay commencé def nan ñu ñëw ne dañuy def ay intervention indi seen i ngànnaay jaxase réew mi yàq réew mi ba lañ bëggoon ñu am ko loole nag eh, li may dalale seen xel mooy la sëñ Tuubaa waxoon na naa leen di fàttaliwaat na ngeen dalal seen xel ci ne nee na réew mi lu dul jàmm du fi am Cheikh Abdoul Ahad Mbacké it ba mu dikkee da ko confirmé daf ne lu wér laa ci wax laa la laa ci mën a wax te firnde yu leer laa ci am daa dee wax ne réew mi noonu bu ngeen tëddee na ngeen nelaw te xam ne lu dul jàmm dafa am ku fi indi aw ay ay du la may booba ba léegi nag installation bi xamuñu kii la xamuñu kan la waaye ku mën a doon tam wóor na ne yow la say boo nga daal di defaru te xam ne aw ay moom mënee su ko dugal Sénégal te dana ñëw ci sa kaw dana yem ci yow yaag ña ko àndal te du ñu déranger kenn te du tee senegal di dox jàmm bu ngeen gisee nawet bi boobu ba léegi ñu ci am ay jafe-jafe jikkooy nit ñi rek moo tax yàlla teg ñu sanction boobu te yàlla nee na inna allaha la yuxayyiru ma bi xawmin hatta yuxayyiru ma bi anfusihim ndax ay jamono mas nañoo ñëw njëreem te loolu fu sëñ Tuubaa mas a nekk fekk na fekk na ko gànnaar ca xumaag aw maral naara yi ñëwoon dajaloo doon ko ñaan loo ba yàlla dogal mu bind xasi nag wakaa naa xat jox leen ko loolu yi dafa am fii ci biir Sénégal biir biir Sénégal bi mu nekkee njëriñ maral wu amoon ci réew mi ngir melokaani doomu aadama yu metti yi ci ay ñaawteef ci ñàkk jaamu yàlla ñu dajale seeni bagage nañ dem ci sëñ Touba ñaan loo ko njëriñ bi ndikkee duy bagage yi ci pénc mi di yebbi ko ci biir kër gi ñoom ñëpp ñu tëdd war ko ngir bëgg a gis sëñ bi bi sëñ bi génnee julli ci daan ne lii lu mu doon ñu ne ko ah, ñii de dañuy baaw naan mu daal di dem julli ji bi mu wàññi koo daal di laajte ñu ne ko boo demee ci penc mit lameel dafa fees del sëñ ba woo leen ba ñëw mu ne leen lan ngeen di def nii ñu ne ko dañuy baaw naan sëñ bi ne ko loolu lu muy tekki ñu ne ko ah nun kat danoo maral te gis nañ ne nun cib nawet la ñuy dund amuñu lenn luñ lu ñu am lu dul am nawet te gis nañ ne kat tawatul jur gaa ngi dee xiif baa ngi ñëw maral bi metti na lool te sëñ bi de yow dong lan jàpp ne boo ci ñaanee yàlla dana ko danga te loo ñaan yàlla def ko mu ne ko waaw loolu de dëgg la waaye xam naa la may ñaan yàlla waaye na xam ne taw boobu day ak malaayika moom de jaamu yàlla nañu yàlla bind comme nii ñu ñu bindee te duñ jëfe lu dul ndigal comme ci ndigal la ñuy jëfe nag te yàllaa leen di digal te yéen la yàlla di digal te du ngeen ko def te xam ne yàlla mën na dëkkee taw ndox mu bari te dara du ñor mën na fee taw tuuti lépp na gàññi mën na fee jëlëb nawet it gën ab nawet kon mbir mi nekkul ci nawet ci jikko yi la nekk dem leen jaamu ji yàlla te dem tuubal yàlla su ngeen bëggee seen aajo di faju àddina ak àllaaxira loolee ca lañ toll ñu ngi jàmbat am nawet di jàmbat ak faatu di jàmbat jàngoro di jàmbat ak ñàkk lépp suñu jikko yee ñu ko teg dan ciy xeex ba sonn waaye noonu rek ñoo ci sonn danañ ci faatu te ko ci faatu wala da nga da nga dugg foo foo xam ne si da nga bëgg a del siwaat àddina te doo del kon daal lii mooy li nga xam ne tey moom laa leen di jox ci euh, ab tegtal ci waxi waa ji na ngeen xam ne na ngeen xam ne jullit bu xol bay nàcc xol ba tooy mu xam yonent bi du jël kàddu gi toll ni di ko jëmee ci kilifa gu toll ne sëñ Tuubaa wala mu ko jëmee ci Alaaji Malik kon na ngeen xam ne installation boobu moo jeexagul fi may terminer nag mooy ñi nga xam ne it ci yoonu murid lañ bokk xam nañ ni yoonu murid di doxe ab yar lay doxe ak taal ak taalibe ak ndigal nanu tënku ca yooyee bu nu bëggee am jàmm sëñ Touba mënuñu ko sosal lu bees ndax lenn luñ fi sosaat rek bi daal lay doon waxu balaak nag bu fekkee da nga ne man mbokkum sëñ bi laa mbokkum sëñ bi nag buñ ko waxee ci niñ ko baa baaxoo xamee mooy ku bokk ak sëñ bi aw sant yaa xam foo ko mën a bokke lay tax nga mën a dajale mbooloo ngeen mën a am jàmm bu dee dëgg mooy da ngay nangoo jaamu yàlla te dem nangoo liggéey téye sa bopp ci sa yoon nekkul tey dimbali nit ki ci lu am lu am njariñ waaye yooyu yëpp nag boo ko bàyyee bëgg dund te bëgg a dund ni ñëpp yi dundee da nga lajj te da nga jaar ci la loolu moo tax ñoom it ñu wut ak kuréel goo xam ne ak fiir lañ ko def ne dañ ciy lëggéeyal sëñ Touba mais lëggéeyaluñ ci sëñ Touba ndax gis nañ ne bañ ko sosee ba tey ay noon la indil sëñ Touba waaye yokku ko ndax noon bii muy indil sëñ Touba buy wax ci sant wi lay baase woo ndax ki wax boo waxee benn mu fayu fayu koog da lay wane na la gëmma la nga ubbi sa group whatsapp dugg ci groupe yi nga xam ne wahabi yi ne yee ñoo ko moom loola neex mën nañ caa waaye ku ko déggul doo ko dégg ku bokkul ca loola it mën caa bañ a xam dara nga daal di dem dugg ci seen biir di leen gëmloo ak di weddi seen i sëriñ ak saaga seen sëriñ sëriñu jàmbur boo saaga ñu saaga sa sëriñ sëriñ jàmbur boo saaga ñu saaga sëriñ te dañuy dugg ci groupe saaga seeni i sëriñ ñu fayu ca sëriñ sab sëriñ nga jël fayu ga teg ko kilifa gu ne nga jox ko ne ko déggal ñi li ñu wax sañ Touba kon jàpp naa ne ñooñu tamit dañ leen a waroon a teel a freiné te ñoom ñi may wax xam nañ leen ñu ngi formé seen i kuréel te audio yu tax ne yii ñuy eh, waxit ñoo ku ci jot ñoo la ko jox ku ci jot ñoo la ko jox boole ko seen i jooyi seytaane yoo xam ne si la ñuy wax gëmuñu ko defuñu ko kon ñooñu tamit war na ñoo wax ak ñoom sëñ mën Muntaxa war naa wax ak ñoom wax ju wóor ndax ñi ngi ko yàqal loo xam ne si di wutal yoon wi noonu lépp lu njëkk sëñ Muntaxa wala ñu wax ko sëñ Touba ñooñu ñoo ko yóbbee ñooy noonu yi gën a mag ci biir Touba du noonu yi taxaw di saagade ndax ñooy dugg ci seen i pas di leen saaga te pas-pas dafa for nit ki moom boo bokkut ak moom pas-pas mooy na nga warmaal pas-pasam koo bokkul ak moom ab tareexa na nga warmaal ab tareexam boo bëggee sa waajur na fonk waajuri jàmbur boo bëggee loo am na nga fonk am amum jàmbur loolu képp moo ci mën a génnee islam jikko ju ñaaw mënu cee yokk dara mënu cee yokk dara kenn ku nekk nag na nga xool sa bopp ci loolu kooku it ku mat a waxal la ndax li ñuy dégg ci scandale yi jëm ci yoonu murit ca kooku jooju lay jógee tardé na it Mbàkke la sant te yàgg naa ko wax waxoon naa ko dana fi indiwaat beneen scandale bu réew bii. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.